ku leen jàppoon di leen masse courant du tax ñu wax ci seen xarit lu ñaaw da leen di rey rek bandi yi sax dañoo am xarit bandi yi ngeen gis ak agresseurs yii dañoo am xarit dañoo sincère ndax seen chef boo jàppoon tey benn bandi naan wax ma information day nangu nga rey ko bu dul jaam du masa yoole booy ànd dañ ne dee ko seetlu ki lay gën a ñaane mooy ki sës si yow di woote xaritoo te dëgguwul yow sa diggante ak Aziz Dabala su dëggu bu dëggu woon buñ koy fexel doo ca bokk bu ñuy fexel sa xarit danga koy moytuloo bu ñuy fexeel sa xarit da ngay mu mel ni yow lañuy fexeel loo amul rekk sa waaye ko amul xarit am na waaye bariwul Omar Pène nee xarit mënoo ci am ñaar xarit mënoo ci am ñaar Aziz dabalaa dafa bariwoon ay xarit Aziz Dabala dafa bëri ay xarit te xarit doo ko bërile mën nga nekk sa biir kër di sangu saabu bi jeex nga xolal nga woddoo sa serviette dem wax ak sa xarit nga ko jottali ma saabu mu dem jottali la walla nga def taatu neen génn xoolal jàkkaarloog sa xarit ne ko jottali ma sarbet bi mu jottali la ko loolu xarit a koy def waaye xarit boo xamee ni dangay am sa xarit su amee lu baax doo ko yéene bu amee xaalis nga mer su amee jabar bu rafet nga mer bu dawalee oto nga mer bu tabaxee kër nga mer di génn di dem ci ay noonam di kolobaare ak ñoom ngir yàq sa xarit yow méritoo dund déedéet boo demee ba yow sa xol bi mënoo coo supporter nit kuy avancé ki nga xamante ne da nga doon woote depuis école primaire depuis lycée yéen ñaar yéen a defandoo lépp kon gaa yi nañu rafetal toogaay yi senegal bon nañu bon goo xamante ni man dama rus yow ñu rey sa xarit nga dem ci compte web bi ba léegi waxuma la yaa ko rey duma la ko ma sa wax parce que fekkewuma ko fekkewuma ko waaye police scientifique yi li ñu analyse ba génnee ko que ni yow ci téléphone Aziz Dabala web bi yaa ci génnee 3000 francs ñàkk baaxul pauvreté day indi rancunier yal nañu yàlla may ñu am yoru leen xaalis xaalis dafa neex yow mille francs moo tax nga rey sa xarit bokk ci couple bi bokk ci ci ci maanaam ci ci ñi koy fexeel ndax 3000 francs yow doo gor boo tëddee doo nelaw da nga war a jug naan sa bay baygon dee bul nangu tëdd keso pandral sa bopp nga dee nit day gore man su ma ko defoon sama xarit barki naa Seydunaa Muhammad dama koy topp man duma ma workat du fàkk jëf bu ma trahiroon sama xarit ba ñu rey ko damay dee ànd ak moom damay gore ba dee xaalis mooy tax nga rey sa xarit xale bu ndaw bi nga juddoo yàggul say mustaasa bëri ak sa sikkim ku xool sa bët yi ni muy xoolee nii nga xam ne yow sa fit toogul sa fit toogul parce que banni doomu aadama bakken dafa foor waxuma ak dofi dama ne yaa ayyuhal lazina amanu ana nit ñi yàlla sax buy wax moo sàkk ñëpp waaye nit ñi lay waxal borom xel yi xaalis du dara xoolal xoolal ni mu xoolal xoolal sama calpe xoolal regardez regardez xoolal masuma rey sama xarit xoolal lii yëpp xaalis la lii yëpp lii xoolal benn bu ci nekk rek benn bu ci nekk rek 32000 CFA la te mu ngi nii dumbul laa ci yore gis nga dumbul dumbul laa ci yore du dara day jeex donc lii du dara ay weccit la doomu aadama moo gën a foor lii boo dundoon gëm sa bopp boo dundoon fonk sa xarit bi man nga dem ba bokk ci staffam mën nga dem ba di ànd ak moom di naaw ci avion yi xoolal ñaaxariñ loo dafa sincère eh, dafa Cheikh Ibrahima maa ngi lay nuyu man alalu àdduna bii duma booleeg doomu aadama man ñi may fréquenté xam nañ ma barki Seydunaa Muhammad e te pourtant damay xëy man di ci teral ay doomu aadama waaye doomu aadama yi dañ may woo di ma bett di ma ci teral barki Sëriñ Babacar Si Maalik te duma rey nit du ma yàq nit du ma santaas doomu aadama te damay fu ma toll nit ñi dañ may woo soo ko jox ma sa wéef man la eh déedéet sa suma la dara man du ma ñaan soxla ma dërëmu kenn déedéet jox ma sa wéef ma teral la te pourtant yàqu ma daru kenn te maa ngi am xaalis ndax maa ngi liggéey di fayeeku doomu aadama yi mënoon nañ ni kii Europe la nekk nammul dara man ku may gis di ma yéene sarax déedéet teraanga la dafa foor ni da gëm sa xarit. waaye bëgg alalu àdduna nangu woo liggéey man ni ñu may gisee nii saa bu ma xëy damay dóor waar ba pare doogu a ñëw di live merci dof Cheikh Ibra xarit yombul nee naa la xarit kenn du ko tànn ci ci ci daraja kenn du ko tànn ci juddu nit dangay ngay tey sa àdduna yàqu na jéemal doon gor nag nga rey sa bopp tubaab yi sax bu ñu trahiree seen xarit dañuy taxaw pendre seen bopp dee as gor day gore as gor bu gorewul kenn xamul lu mu doon merci loolu nit da gore nekkal gor bul tëdd ci kaso bi ñu lay jox nga lekk bul tëdd ci kaso bi ñu lay jox ngay naan moytul loolu boo génnee nooy xoolee askan wi barki Seydunaa Muhammad yow sa dund amatul sens amatul sens képp kuy wax xarit amul ci yow lay jëlee exemple képp kuy wax xarit jaruta wóolu jaruta fonk e ci yow la koy jëlee kon yow da nga war a effacé wu e, kenn du la rey yow reyal sa bopp yow ak mboolem ñu bokk ci kaa bi du moom rek na bu lay liñ lay tuumal ci biir kaabi man setaluma la weddiluma la defandruma la ndax nag boo dee jigéen ànd ak sa góor ñu koy toroxal nga gis ni lii di ñëw mën na cee ñàkk bakkanam yaa war a jóg dog loolu Aziz Dabala du ubbil góor jigéen lay ubbil ngeen bëgg ko yàq bëgg ko gaañ ngeen jaare ci jigéen jigéen ubbil ko yéen góor ñi ngeen dugg ba pare dàq jigéen bi mu dem yoonam ngeen menacé ko ba ñemewul wax waaye police taaj na ko te ma ngay wax ma ngay wax de te ba tey bàyyeeguñ ko bàyyeeguñ ko de bàyyeeguñ ko police ku mu jàpp am na loo def man mi deful waxuma kenn jàppuma kenn jàppuma je n'ai rien fait il faut que yéen yi ngeen xam ni ni ngeen jikkowoo baaxul man bañuma leen seen jikko laa bañ sincère leen ci seen nit nit dangay ngay mën sa nit man lan lañ may jëwee Soko Noisetaire dafa mën nitam koo wax mun la soo ko moom dof la waaye kenn du laal nitam nit da ngay mën sa nit mu jaral la nga joxe sa bakkan nga dee yow ngay jaay ni bànni nga ngay jaay ni délinquant nga rayoo ko ndax ki ka ray wax nañ ko Mamadou Lamine Diaw moo ko rey e image photo Mamadou Lamine Diaw man basé wu ma ci ay image police yi dem nañ ba xam ne man mii damay wax dëgg e ñu boole ak seen benn membre mu may informé déggoo ma de loolu sax waruma ko wax nit sa xarit na la jaral yow nga teg sa bakken man ku laal sama xarit danga may laal sa xarit dee mënoo jooy nga jël musuwaar di jooy jooylu di fomp man fi may wax yow nii barki salaatul faatiha bu fekkee sama bët yi taawul j'ai des larmes aux yeux j'ai des larmes aux est-ce que dégg ngeen man leen tappati leen dégg ngeen mën leen partager leen ngeen ànd ak moom xaritoog moom ba noppi di ko gasal kàmb est-ce que dégg ngeen mën leen partager leen live bi du ngeen ko dégg wuruma ci loolu li may wax cri de cœur sama jooyu xol laay jooyi jooyewuma ko ci ngistal de sinon damay tekki samay verre ngeen gis ni sama bët taawee luy alalu àdduna luy alal alal soo ko bëggee da ngay am jom man bi ma toogee Sénégal xam ni fii boo fi dëkkee da ngay soxor fii boo fi dëkkee dangay bon man ci laa gedd senegal kat ndeyu lépp daw dem dugg Europe te bi may dem dafa metti woon. gis nga lii lii. lii ku ko jàppee ay ay comédie wala ku ko jàppee ay ay ay ay damay xam ni yow xol xol xol amuloo ko amoo xol tu n'es pas un bon personne rawatina nag nga jël ko yow di ci def ay buzz di ci ambiance di foo bisa ngi ñëw yow moomu di nga mel ni dina mel ni yàlla yow kese la sàkk Souleymane fay doon na wax chaque jour ñu tàggee nit ci rajo bi du la metti waaye bu ñu tàggee sa mbokk sa àddina bi yëpp dana tukki nit da gore nit dangay ngay ñu laaj ko mu ni moom Demba waaw Aziz dey man la mujjee waxal yow la mujje waxal Aziz day nëbbantewul ak man dara li ngay wax ci moo la yóbbu kaso kenn waxul yaa rey waaye bi ñuy bi ñuy jooy ki dee bi ñuy jooy ki dee ci biir suuf yow taloo jooy yaa ngi tal kontu xaalisu wéef ba ay alalu àdduna boo dee xale patuloo làggewoo dootoo xale gën a màgg moo am waaye gën a am jom nit da ngay am jom sàkku jom juddu bu rëy ndey ak baay ful fayda boroomam dafa am loo xamante ni yaa koy def ci yow sa ndey du ko def ci yow sa baay du ko def ci yow nit da gore doon nit ku diiñ alal du dara fii lañ koy bàyyi bàyyi njugo kebe mu ngi ci kaw suuf ñu ko ëppale xoola xoola kii Mamadou Yatassay te te Wally Seck doon koy yatasaay woo la Yatassay dee na Alaaji Badaloo dee na Sëri Xujukumba Gayndeel Xujukumba dee na lay mbay dee na eh borom alal yu bari dee nañu. bu doon alal day faj dee e dama ni ñu bari duñu dee demal ci bàmmeel yi demal ci armeel yi ay néew yoo xamante ne ay immeuble la taxawal ana jàllo picc jàllo picc mi daan jaay picc ba yàlla barkeel picc ya ay picc la doon jaay dem ba doon milliardaire jàlloo picc ay njabootam ñu may dégg dee na Michael Jackson kenn ëppalewu ko dee na dee rek kay dëgg dangay dee boo yoree da ngay dee boo ñàkkee da ngay dee boo amee da ngay dee boo amul da ngay dee waaye nga bàyyi doomu aadama bi yàlla reyal ko boppam waaye nga ne yow doo xaar yàlla da nga yàkkamti da nga koy éliminer ndax mu ngi commencé jot maanaam bànneexu àdduna Aziz Dabala yi dafa souffrir kii dafa souffrir ci jeunesse yépp dund ci bànneex ba tey dundul bànneex ba tey man li ma gën a metti man li ma gën a metti ci kaa bi Aziz Dabala man maa ko mag Aziz mi xale bu ndaw la bi mu juddoo léegi ay moroomam yépp ngi tukki ay moroom ñépp a ngi bànneexu ci ci ci ci aar bi moom amul amul ci dara trois mois la am bànneex trois mois jotul am sax visa pour dem way yow Brésil gi demu fa Espagne bii demu fa Ndiapazo mu ngi jaabante Aziz Dabala mësul yéeg avion mu jëm Europe mu ngi woon ci yoon boobu ngeen dem ba xam ni booy bi mu ngi commencé dem pour tekki commencé ut appartement ku dëkkoon sa kër ndey ak sa kër baay ñàkk mënal sa bopp ngay fanaan ci ay këru jàmbur ñàkk mënal sa bopp ngay bokkandoo ak ay nit ay kër ndax amoo loo fayee nga dem ba jël sa këru bopp jël sa appartement bopp bàyyiwu leen ko sax mu am oto boppam bàyyeegu leen ko sax mu voyager yéeg ci avion yi ngeen xañ ko ko xañ ko ndeyam ndeyam ju ko nàmpal ndeyam ju ko jur juróom juróom-ñeenti weer bis ñëw mu xaw ko rey mu doon meer bu màgget màgget ba xobi daas baayam génn àdduna te fu mu toll moom waxam yépp moo doon man de armeer yi lu mu yàgg-yàgg ku gëm yàlla la bu leen xool ci melokaan bi nii boo xoolee ci melokaan bi da koy dëkkal fu mu dëkkul boo xoolee ci melokaan bi da koy jugé ci yeneen waaye nga xool ni moom saa su ne day dem ci armeel yi di defar néewu pàppam ba pare di wax naan lu mu yàgg yàgg fii dama fi ñëw lu mu yàgg yàgg fii man fii mooy këru dëgg gi kon jullit la kii bu dee war nañ ko jullee su dee war nañ ko jullee gis nga man man ci àdduna nit gënuma wow xool man nit gënumaa dëgër xol barki Seyduna Muhammad man nit ku dee jaaxaluma dama yàgg gis nit ku dee ñëw naa ci gaal yi ña ma àndaloon ñépp genn wàll gi di wàdd di dee sama kaw ñu leen di jàpp den sànni ci ndox mi nit ku dee jaaxaluma mais mendicité sénégalais moo ma jaaxal soxoraayu sénégalais moo ma jaaxal sénégalais ngay sëy moom sax te du la bëgg jigéen ñaa ñi nii mën nañ ma seede dañuy am seen jëkkër du leen bàyyi ñu uti liggéey du leen bàyyi ñu daani doole da ngay am sa jabar yéene woo ko mu doon femme d'affaires bëggoo mu yéeg ci avion yi bëggoo mu voyager bëggoo mu am lu baax te yow nee nga yow yaa ko takk teg ko ci kër gi di ko jabaroo mu lay jural ay doom waaye bëggoo mu am lu baax soxor loolu lan la am sa soxna mu lay fóotal di la toggal nga ne jigéen pour kër la du pour mbedd yow am nga sa nday di ko teral moom mu war a am ndayam teral ko war a am baayam teral ko nga ni sa soxna du génn kër gi daa war a toog ci kër gi gis naa ñu ci dóor seen jabar ndax seen jabar dafay xëy di uti lu ñu am indi si biir kër gi te yow saa boo xëyee yaa ngi dem France yaa ngi dem Allemagne yaa ngi dem Belgique yaa ngi uti yaa ngi am waaye bëgguloo sa soxna yow uti bëggoo mu am bis ba commencé am ba commencé tolloog yow nga fexel ko boo ko rayul boole koog ñu ko rey lii mooy senegal gémmiñ gu waxul dëgg wax fen nit day góorgóorlu ku góorlu yàlla dimbali la ngeen fekk doomu jàmbur ju góor góorlu ba am li mu am yaayam ñàgg ko ñaanal toog ci si jaada gi di ko ñaanal muy doomam mu koy ñaanal li mu nekk nii man maa ko dégg mu wax ko mu ni moom bi mu ciy dugg papam ak yaayam ànduñu ci woon bi ñu demee ba xam ni lii la ko yàlla nattoo mu bëgg ko ci la papam ak yaayam commencé di ko dimbali man xaw ma ban façon xol ngeen yor ban façon xol moom la leen yàlla suñu borom séddee waaye man xol yi ngeen yor dëgër gi mu dëgër man jaaxal na ma yaayam di ko ñaanal ngir mu tekki baayam teel a génn àdduna mu jiite famille doon xale bu ndaw jiite famille doon jeune yéen joxewu leen dépense xamu leen lan la famille mel affaire bi jarul garaawal de ku ci nekk ci ñun na ko xool ci sa bopp ku ci nekk ci ñun na ko xool natt ko ci sa bopp nga juddu fekk mu metti sa baay bàyyiwu fi dara sa yaay amul dara yow nga jóg ngir relever sa famille nga jóg pour yëkkati sa fami ay jàmbur yàlla yoo xamante ni yéen a juddandoo yarandoo màggandoo ñi ni lii du fi am loolu Sénégal doomu la am dañ lay romb sax ngay kontaan ñoom bëgguñu gis nit kuy kontaan nit kuy mer la ñu bëgg di gis nit kuy triste la ñu bëgg di gis fu ngeen ko teg kenn du am jàmm yéen ku am jàmm ngeen sosal ko ku am jàmm ngeen yàq ko jàpp nit ñi di rey di rendi mel ni ay dëmm kenn warul am yéen ñi bëgg Sénégal seen biir xool nag yéen laay waxal de lu leen ci lu leen ci dal rek yéen ñun gis nañu exemple yi fii lañu gis nit jàpp nit biir Sénégal rey ko rendi ko lakk ko ba mu xëm lakk ko ba mu xëm mu taxaw nag naan waaw ki ka rey ku def lii li mu def ñaaw na mais Sénégal yéen dafa mel ni ay dëmm ngeen dafa mel ni ay xolu dëmm ngeen yor non vous êtes vrai vrai doomaraam ngeen yéen barki Seydouna Muhammad au fait da ngeen soxor dangeen soxor nit ñu bon ngeen yéen may signalé nii ba TikTok dama def ay vérification lu leen ko jaral barki Seydouna Muhammad léegi laa ma yàlla dimbali ma bës ko mu deñ ñu ngi may signaler nii ci kaddu yi nga xamante ni maa ngi koy yëkkati muy ay cri de cœur wax ñëpp du yàlla ñëpp la ko man loo man su ma duggee ci TikTok bii kafooree moo ma indi kafooree bégal doomu aadama yi moo ma indi merloo nit ñi indiw ma donte damay dugg ci ay saaga parce que dañ ma daan saaga ba sama xol toj waaye ku ma saagawul du ma la saaga ku ma tooñul du ma la saaga duma ma tooñ li ma gën a bañ suma àdduna mooy nit kuy tooñ yonent bi mu ngi koy wax ci xadis azul mu tooñ zulmaati yow mal xiyaam la nuur tooñ lëndëm lëndëm la boo xamante ni ci biir bàmmeel lay nekk des fa ba keroog bisu penc man bu ma jotee yow tooñ la dinaa fexe ba woo la ci pep baalu la ba noppi yéeg ci kaw sama live baalu la fa devant tout le monde kon boo ma tooñee baalu woo ma damay defante ak yow xamoo leen tooñ nu mu mel tooñ du gàllaaj te kenn du tooñ di am ndam mënoo dëkkee tooñ ba noppi di am li la neex aadama tey boo xoolee ci sa entourage Adamo ñëpp ngi demal seen bopp te yaakaaruñ ci TikTok ñëpp ngi amal seen bopp te yaakaaruñ ci TikTok yow yaa ngi ñëw di yàq nit ñi booy doo kaf booy doo foo yow foowoo ambiance oo reetaarloo woo nit ñi yow dangay ngay ñëw rek dugg ci famille jàmbur yi nit ñi dee ñi sax nga leen di yàq te ku la topp nga yàq ko man bi ma demee ba xam loolu laa la épargner sama vie ma bàyyi la àdduna ak àllaaxira laa la bàyyi parce que doo nit doo nit lii dafay jeex barki salaatul faatiha dafay jeex jëf ju baax rek moo dul jeex ak jëf ju bon jëf yi ñoo fi des mais lii yëpp day jeex dafay jeex te fàttali la àddina bii du kër <laughs> du kër du kër dëkkoo fi dëkkuma fi dabalaa mii war na la jox leçon bis dina ñëw barke Seyduna Muhammad dinga xam ni yàlla sunu boroom fàttewu la dina mel ni yàlla yow rek la mës sàkk aadamoo jëf joo gis am na fay jëf ju baax ja am na fay waaye jëf ju bon ja am na fay am na fay payoor gaa ngi lay xaar ñetti ñaan yi la yàlla wax ni du ko neenal ci kaw suuf jullit bu ko ñaan dina ko defal muy wa daawatu waalidayni wa daawatu mazlumi wa daawatu musaafiri dama lay fàttali rek yow man gënuma la jàng sëñ Mansour si moo la jàngal te man sëñ Mansour jàngaluma mësuma toog sëñ Mansour toog gis naa ko nii séen ko rek waaye masul téye sama loxo yow sëñ Mansour si jàngal la nga wor sëñ Mansour sëñ Mansour def ci yow xam-xam nga wor ko aboo kóllëre billaahi wallaahi wa tallaahi li ngay def amoo kóllëre war nga sëñ Mansour war nga tarixa Cheikh man de su ma sëñ Mansour war yaroon ma man jàng li nga man yow bu ma ko mënoon bu nekk sama dënd bii barke Seydina Muhammad eh dama ciy tàgg nabi ba keroog may faatu sëñ Mansour yar na def ci yow tey boo yëkkati woon. boo yëkkati woon ñëpp a xam ni kilifa gu mag moo def ci yow li mu def ci yaw nga jël lépp dëxëñ ko di fecc waxatuñu boo ci yemoon sax garaawul mais ngay jug di toroxal ay doomu aadama ba jug di toroxal ay néew yi nekk ci biir suuf suulaguñu néew bi nga jug di ko yàq suulaguñu néew bi aadamoo nga jug naan néew bi néew bi da doon ay diw néew bi néew bi moo doon tëdd moo moo xale bu góor bi mais yow yow yow yow am na yoo xamante ni même bu dee dëgg la du ma li nga wax ñemewu ko parce que fekke uma ko mais nga nga xool ci lu yorente bi waxoon mësuma joteeg yow ba tuur xéwal lii dafa metti ku ni mettiwul daf la dalul bu ma kenn woo bu ma kenn woo bu ma kenn woo bu ma kenn woo ku ne lii mettiwul da nga amul nit ku dee ba aadamoo ñëw di ko yàq allo alo allo mais maa ngi en maa ngi live